ak santam di rafetlu seen teewaay ma leen di nuyu ci turu secrétaire d'État Moïse Sa di leen nuyu ci sunu ci turu suñu collaborateur yi fi teew yëpp secrétaire général directeur yi fi teew yëpp directeur de cabinet ñu leen di sant bu baax ci seen teewaay wane na ni intérêt yëg-yëg bi ngeen am ci activité yi nga xam ni ministère des affaires étrangères bi ñu koy doxal tey nag li ñuy taxaw woote mooy ñu wax leen jox leen rapport provisoire ci opération yi nga xam ni ñu ngi ko doon def ci force Covid 19 diaspora xam ngeen dafa am loo xamante ni bi feebar bi dalee ci réew mi mën nañu wax sax balaa mu fi ñëw président Macky Sall daf ñu dajale. wax ñu taxawaay yi nga xam ni ku nekk war nga ci taxaw senegal nag diaspora bi doon ay doomu réew ñi nga xam ne am nañu solo lool ci réew mi ndax dañ fi jógee dem bitim réew di fa ñaq di delloo si fii ci biir réew mi lu mel ni nag bu amee président ku ko xam xalaat leen mais kat ñoom dañu doon am di def ci réew mi

di ko ci gërëm ñun ñi nga xam ne daf ñu dénk lu jëm ci toppatoo wàllu Sénégal de l'extérieur mais nag bettuñu ndax xam nañu yëg-yëg ak cofeel ak considération bi nga xam ni am na ko ci sénégalais yi nekk bitim réew mu am benn plan bu rëy bu fi président def muy plan bi ñu woowee plan de résilience maanaam nu ñuy def ba bu feebar bi duggee ci réew mi ñu mën a wàññi loraange yi mën cee génn mu def fi plan boo xam ni junni milliards la ci def mu concerne ay domaines yu bari xam naa ni ministère bu nekk di nga ñëwaat ci la nga xam ni mooy domaine bi ñu la féetalee mais déjà ci gis-gis bi dañ ko war a rafetlu ñun ñëpp ndax yëf yi buñ ko jàppee feebar kese xëy na mën nañ koo faj mu lor ñu. buñ ñu ko jàppee gàllankoor kese xëy na feebar bi mën nañoo lor le fait que président am vision boo xamante ni dafay jël aspect wu feebar bi yépp jël aspect yi nga xam ni moom la yëf yi andi ci biir adduna bi andi ko ci biir Sénégal loolu gis ngeen ni tax na tey ñu jàpp ni Sénégal ci wàllu gestion wu feebar boobu xëy na buñ doon natt réewu adduna yi doon nañu tey ñaareelu réew mi nga xam ni moom la ñu gën a rafetlu liggéeyam ak taxawaayam bi mu jëlee fukki milliards yi ak juróom ak ak ñaar jagale ko diaspora bi dañoo daje toog ne léegi dañuy fexe ba xool nan lañuy jimbale dimbale bi lépp ñu wéer ko

moy ñun mënuñu génn ci règle yi nga xam ni moom la budget autorisé ndax ñi ñi digaale ci biir Sénégal ñu nekk bitim réew kon boo jëlee alal fii ci Sénégal yónnee ko ci benn ambassade ambassade bi mënul doxalee lu dul li règle budgétaire yi di santaane kon ñun ci wàllu gestion ni ñu gérer force euh, alal ji ñu jox ci budget bi dañ ko jaarale loolu mooy premier élément bi nga xam ni mën nañ leen ko wax bi feebar bi taxaw na dañu am ñaari cellule benn cellule bu nekk fii boo xam ni dafay toppatoo ni Sénégal yi di dundee bitim réew te muy sa présidé woon ko ak beneen cellule yeneen cellule yoo xam ni ci ambassade yi ak consulat yi lay nekk ndax foofu la Sénégalais yi nekk donc ñoom ñoom ñooy gérer Sénégalais yi de manière concrète mais ñom ñoy informé échelon central bi ñu am fi benn cycle de crise bo xamni secrétaire d'État moko présider won xamna ni bu jëlee kaddu légui dina ñëwaat ci ñu doon liggéeyee yan encore lañ ci am ak it yan résultat lañ ci am. bi président décidé jël alal jëñu jox xoo diaspora bi te xamuñu ñaata lañu ñu bari xamuñu le ndax néwul nañ ko jox. foo xam ni sénégalais nga am këyit dafa ne dañ ko jox sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew or sénégalais yi nekk bitim réew am na ñoo xam ni ñuy jàpp ñu ngi wax ak ambassade bi wala consulat yi am na ñoo xam ni nekkuñu ci loolu waxuñu ak ñooñu te ñoom ñëpp état bi daf leen yoreel ndimbal ñoom ñëpp état bi dafa am loo xam ni bëgg na leen ko defal.

biñ koy arrêté boobu am nañu ñaar téeméeri junni nit ak ñaar ak téeméer ak ñeen fukk ak benn yu bindu deux cent mille cent quarante une personnes yu bindu ñu arrêté ko ñu gis ni aussi sénégalais yi ñu ngi ci cent quarante pays c'est-à-dire téeméer ak ñeen fukki réew yoo xamante ni am na ay Sénégal yu fa nekk amit sax ay réew yoo xam ñu ko ci gisee daf Sénégalais que Sénégal réew la mu ubbeeku euh, Sénégalais yi ñu ngi fépp ñu ne loolu doyul ndax xëy na am na ñoo xam bindu am téléphone wala ñu am ordinateur wala mu am ku leen ko defal waaye ñu ne kon nañ fi def benn centre d'appel pour kookoo xam ne bindu nga am na loo xam ne leerul ci yow wala la nga bind jotoo réponse wala daal am na lu doy lu mën ci nekk loo bëgg a laajte ñu fi def benn centre d'appel président ne ñu nag centre d'appel baax na waaye dañu war a dimbali Sénégalais yi da ngeen di fexe ba ñu bañ leen a dépenser loo inutilement ñu ne ko boo ñu dañuy ba communication nationale bari ngay fay masala boo nekkee France wala Belgique ngay au Sénégal fay communication internationale da ngay communication comme bu nekkoon yaa ngi France différence bi état du Sénégal moo koy pas. ni xaar Sonatel mi ngi parce dinañu jox facture bi te du le 22 juillet nous ñu arrêté centre d'appel bi ñu koy arrêté 18 633 appels Madame, fukki ak juróom-ñett ak juróom ak juróom juróom-benn ak fanweer ak ñett cee appel ñoo xam ne ministère bi ci ay opératrice ak opérateur yoo xam ne boo woo wootee ñoom ngay waxal ñu jox la renseignement yi nga bëgg di ko def aussi ci ay làkk yu bari yu am biir Sénégal fii wolof séeréer tukulóor joola amoon nañ ci làkk yu bari defe naa juróom ba juróom-benn ñoo xamante ni làkk boo ci wax rek ci biir Sénégal amoon ñu nekk fii yoo xam ne dinañ la tontu. alal ji nag bi muy ñëw ñu def ñetti phase. ndax bu ngeen di fàttaliku dañu amoon phase boo xam ne yëf yi dafa taroon lool maanaam moo doon mois de mars avril boobu xëy na feebar bi bareegul woon Sénégal dëgg la mais ñun ñëpp jaaxle woon nañu adduna bi yëpp tëju woon na te amoon na boobu ñu ngi nekk ci werante feebar bi ñi la mel parce que boobu ci moom ci wàllu xam-xam am na loo xam ni xamuñu ko woon ci feebar ñu 726 millions maanaam juróom-ñaar millions ak téeméer ak juróom-benn séddale ko poste diplomatique yëpp nee leen ñett lañ ci soxla ku feebar dimbali leen ko ku ci gaañule dimbalu leen ko sénégalais boo xam ne da nga dem bitim réew ndax boobu ñu ngi doog a tëj aéroport yi nekk ci ay jafe-jafe dimbali leen ko loolu aussi mooy dina ci ñëwaat léegi ñett ñooñu la ñu cible boobu la ñu amoon parce que boobu ñu ngi woon ci phase d'urgence ñu dimbali ci 1358 personnes maanaam junni nit ak juróom ñaar téeméer ak juróom-ñett dañ ci dimbali loolu aussi détail bi ñan la fi ñu leen ko joxee lépp doon na loo xam ne mi ngi fi fàtte naa ci yokk étudiants yi ci jamono jooju amoon nañu aussi étudiants yoo xam ni amuñu woon bourse seen i mbokk leen doon yónnee euh, amuñu aide ñu ne koy situation d'urgence donc juróom-ñaar téeméeri millions yooyu ñu yónnee ñooñu la njëkk a jàppale ak ñi nga xam ni seen i mbokk dañoo wàññeekoon ci feebar bi yéen a ngi fàttaliku coow li nga xam ni amoon na ci feebar bi yëpp jamono jooju bi ñu koy wax mu am une deuxième phase ndax bu ñu defee première phase bi pour ñu dimbali nit ñi en urgence deuxième phase bi toll ci juróomi milliards yoo xam ni yónnee nañ ko bitim réew boobu nag bi ñu koy yónnee fekk na ñu am sunu base de données li ñi bind ñu ne ñu ñu leen léegi

ku ci nekk yaa ngi wax diw fay naa ko moo inscrire bés nangam ci compte numéro nangam formulaire loo xamante ni incha allah dinañ ko mën a mettre à votre disposition mu am une troisième phase aussi toll ci juróomi milliards tey jii bu ñu xaymaa lépp ci 12 milliards 500 yi nga xam ni yor nañ ko muy fukki milliards ak ñaar fukki milliards ak benn ak lu teg yóbbu nañ ko bitim réew génn na des na fii à peu près euh, six cent millions ou sept cent millions bu dinaa ci ñëwaat li tax mu mu mu des parce que opération ñu ngi fay ba tey am na yoo xam ni pareegul mais aussi am na yoo xamante ni il faut que ñu waajal ko ñaata la ñu war a fay facture ndox kii euh, téléphone yi fi ñëw ñu doon woote lan la ñu war a fay ñi nga xam ni ñoom ñoo yoroon

nañ ko yóbbu ci pour Sénégalais éventuellement mais on est en train de faire travail de synthèse bi nga euh, mais ndimbal bi yemul ci rek a sénégalais yu nekkoon fii am bari ci Italie Espagne wala Belgique.

mais ci askan bi gis donc donté don na pression xamni ñu ko doon mais li ñuy lo rek moy feuille de route bi président wax na nañ ko top ñu top ko ci nga la personnes la ñu delloo muy fukki junneeg ñaar sommes dimbali nañ ñu Sénégal mën a dellu di ma nekkoon bitim réew mën a ñibbi si fii ci Sénégal li ci ëpp nag ci Afrique fii la mooy ñi nga xam ne ñoo bloqué woon surtout ci réew yi ñu wër dégg ngeen fii ñi nekkoon Mauritanie coow li ñu amoon ñi nga xam ne ñu jógoon Maroc tey ñu ne dañ leen bloqué frontière Maroc ak Mauritanie après ñu ne leen ñëw nañu dugg nañu ndax réew yi même ci biir réew yi bu ngeen xoolee diggante région ak région dañ ko tëjoon donc boo amee compatriote bu nekk Maroc war Sénégal non seulement il nga jappalé ko ci biir Maroc bu mu a ba frontière mais bu yexé ba frontière bi même biir Mauritanie bu fa nga région il fallait que nous intervenir en tant que ministère pour jappalé leen bu ñu mëna a fi am ñoo xamni des dañoo ci juroomi jooni nit amon fi liggéey amon liggéey Sénégal

nous nous wala saisir présidence de la république président ku am la sénégalais yi ñu jàppale leen ñu ñibbi ñu delloo si koor yi fii ci mais li ñu jàngat ci il faut que nous xam yan sénégalais yu nekk ci biti ak ñu ndax feebar bi war nañoo yee ci lu bari ci ni ñuy dunde te amuñu si ci sàkk ni bu yàlla teggee feebar bi ni ko bëggee il faut que suñuy relation yu xolaat ko bu baax a baax a baax a baax a baax xam ni li am ci àdduna bi ci at bi kenn xalaatul woon ñaari at yi weesu lu mel nii mënoon naa am ci àdduna kon dafa baax ñu xam sénégalais fu ñu nekk président joxoon ñooy instruction pour une def recensement Inch'Allah, nous dinañu lancer l'opération. bi tey ñu ngi le ministère. ak travail de recensement le 10 le recensement dina tekki waa ji nangoo ñëw ci yow nga mais aussi da nga ko war malheureusement ou heureusement sunu clientèle mi ngi ci àdduna bi yëpp sénégalais yi nga xam ni.

ñu mën a xool fan lañu war a mën a fekk Sénégalais yi ba recenser leen ñoom ak seen njaboot mën a xam fu ñu nekk pour que ëllëg si biir bu ñu amatee lu mel nii wala leneen ñaanuñu yàlla lu mel nii amaat fi waaye leneen lu mënti nekk ñu mën a xam exactement ñaata Sénégalais ñoo nekk bitim réew ak buñ leen di jàppale nañ leen di jàppale li nga xam ne daal xam nañ ko mooy diaspora bi lu am importance la ndax boo jëlee alalu réew mi yëpp tey.

il faut que nous xool exactement quel type de relation nan avons nous nous ba xam Sénégal nous nga au Sénégal la protection bi nga ce que mois d'avril Le président le gouvernement dafa de joxoon instruction pour nañu xoolaat suñuy document officiel ndax dafa am loo xam ni moom la ñuy ràññee président Don koo il est très attaché à la transparence il faut que les lu ñuy def ñu teg ko ci yoon la ñu war def ci ñun ministère des affaires étrangères fii mooy la nga xam ne mooy dox suñu de victime réew

liggéeytuñu woon ci lu jëm ci passeport bi léegi nag pare nañu bu ngeen pare léegi dinañ leen won fi ñu ko nar a defare muy passeport yoo xam ne li ma leen mën a wax ci gàttal ci wàllu sécurité ci biir xëy na mënuma détailler élément de sécurité yëpp du du yoon mais daanaka moo billet de banque ñoo yem boo gisee suñu xaalis junni wala ñaari junni wala téeméer

ci fan yi commencé ko defar am nañu yaakaar ndax jàppaguñu bés bi nga xam ni ci la passeport yi ñu yor léegi di arrêté ndax processus la parce que passeport diplomatique tey sunu ambassadeur bi nekk Japon moom la yor ak ñeneen ak ñeneen ku ci nekk foog bi nga yor ñu soppi ko jox la beneen muy benn il faut que réewu àdduna bi yëpp ñu informer leen ne leen kat léegi passeport bi dootul bu bleu bu xonq la nii ak nii ak nii moo nekk ci biir pour que ñoom ñu mën a def contrôle yi ci aéroport yëpp xool aussi yan accord la ñuy war a mën a am ak réew yi mais gën baa bari fii ak juróom-benni weer gën baa bari passeport yi nga xam ne mi ngi dox tey dootul amati njariñ ci àdduna bi mais nag loolu incha allah am nañ ci yaakaar ci yéen ngeen jàppale ñu bu baax ci wàllu communication pour ne pas que buñ ci tollee fii ak juróomi weer wala juróom-benn weer un sénégalais de bonne fois bu xamul amoon kayit bi dem ci aéroport boo xam ne bu nekkoon ci réew beneen bëgg ñibbisi fii ñu ne ko doo embarqué wala doo yéeg xam nga loolu lu jafe donc dafay laaj ñu waxtaanee ko moo tax ñu leen di informer tey ngeen xam ni. changement bu am importance la boo xam ni war na dugg muy passeport de service aussi dañ koy changer yeneen passeport de service mais passeport de service c'est moins compliqué parce que ñi ko yor ñoom ñi ci ëpp ci ñoom ñu ngi fii ci biir Sénégal c'est des hauts fonctionnaires ñooñu mën nañu ko changer fii loolu moo amul jafe-jafe mais passeport diplomatique tey lu jafe la donc ñu ngi xool nan la ñuy changer les ñi nga xam ñu ngi fii ci biir Sénégal am ci droit ñu jox leen ay passeport yu bees nan lañuy changer les ñi nga xam am nañ ay passeport nek bitim réew té ñu war leen faa fekk wala wara organiser sen ñew fi pour ñu jox leen ay passeport yu bees lolu it ñu ngi ciy et inshallah dinañu xool ak presse nan la mëna organiser de bons plans de communication pour que buñu ñu ci war ko dindi kenn ci ñun du japp ni def nañ lo xamni dañ ko daf ko bett day doon lo xamni ñëpp xam nañ ko ñëpp yëg nañ ko inshallah ci fan yu néew dinañ ñëwaat vers vous wax leen ni nii la ñuy organiser passeport diplomatique yu bees yi mi ngi nii mooy passeport de service yu bees yi mi ngi nii bii mooy passeport diplomatique bi lii la donc dinañ leen wax léegi caractéristiques yi bii mooy passeport de service bi nga xam ni fonctionnaires yi mom lañ ñom lañ koy jox kon gis ngeen ni nga boo talé ñaari du ngeen xam ban mo ci passeport diplomatique ban mo ci passeport service li <laughs> moy ñaari passeport yi bees yi nga xam ni mom la gouvernement du Sénégal wara adopter ci weer yu gàtt inshallah ci fan yi rek dinañ dinañ commencé changer passeport yi pour autorité yi nga xam ni war nañu am passeport yi bees yëpp dañ leen ko jox ba japp nañu fin d'année incha allah yële yëpp dootul amati disons njariñ xanaa nga denc ko rek comme ni ñuy def billet banque yi nga ne billet banque bi moo fi nekkoon waaye mais nag léegi dootul billet banque bi billet de banque bële la